ñi ñëw tey ci li nga xamante ni mooy enquête de moralité ci ay nomination gis nañu nomination kilifa gis nañu nomination nit dof tey suñu doon xool ci qualité expérience ak expertise mën nañu ne zéro suñu naan ci saaga ak sosal doomu aadama ak trafiqué visa mën nañ doon ñooy numéro un ñi gis kenn koo xamante ne tey moom lañ yóbbu ci bopp ARTP mu xaw a jaaxal sénégalais yi nag muy le docteur Aline Abou Talib Diop. waaw ñu jàppoon ko ci wàllu médicament yoo xamante ni fii ci Touba. yo xamanteni mi ngi ko jàll woon ci voie frauduleuse kooku tey ñu def ko directeur général ARTP ñu woote jub jubal jubanti waaw mais Tange moo fi am nag. xam mais naka la ñu mën jëlee koo xamante ni dafa luubal ñu jàpp ko ci luub muy directeur ARTP tey ñu bëgg ko gis kooku tey ñu bëgg ko jox poste de responsabilité. waaw mooy wane ni rek ils sont pas amuñu amuñu ay nit yi ñu soxla woon pour mu jàpp si liggéey réew mi mhm. parce que duñ demee ba ki nga xam ne ni yone da koy topp. Mhm. parce que il a fui dafa daw. moy mhm. Sénégal yi danga ko fàttalikoo mooy ji nga xamné ni dang ko jàppoon Touba muy trafiquer ay médicaments. Mhm. jël ay médicaments dugal ko ci marché noir bi. docteur Diouf. tey moom la ñu nommé directeur de la PR mo xamné moy diriger mbirum garab ci Sénégal. mo am budget de 2 milliards. nga gis sàcc triant. escroc ki nga xam ne ni fraude la fraude lay def nga nommé ko jox ko budget deux milliards kon maa ni wax société civile bi ak ñi nga xam ne ni Sénégal moo leen ñor ñu dossier bi moo gën garaaw yëpp Tange mm-hmm. dossier bi li ñuy wax ci ONAS ak Cheikh Omar Diagne ak mm-hmm. lépp lu fi xew dossier bi moo gën a garaaw parce que seen un moom la ñu jox suñu napsu xamuñu ban genre garab la fi war a dugal xamuñu fan lay jëlee garab yi ki dem bay lëkkaloog ci ak marché noir tey ñu xëy la jox la médicament yi nga xam ne ñu war a faj ñu am jabet mhm. ñu am tuberculose ñu am nangam nangam nangam tey ñu dénk ko sa loxo un budget de deux milliards soo mi li si ñuul na ko si génne. mais tey naka la ñu ma nekkee ci benn régime Bassirou Diomaye fay woote ko Sénégalais yi jàppee ko dafa yaru dafa dal ñu jàpp kii nga xamante ni mooy docteur Alioune Abou Talib Diouf régie su dee disponible la ngeen dugalal ma illustration bi nga xam ne li ñuy wax inventé wuñu ko mi ngi noonu du rédacteur de la partie pharmaceutique dans le projet Pasteur et apporte de la criminalisation du trafic de médicaments. Voilà. Qui est nous avons nommer On l'a déjà nommé. Hein? Voilà. On l'a déjà nommé. Légui ñu bëgg woté djub djubal djubanti. War ko jox suñuy garab ki nga xamantene da doon trafiquer ay garab. Tay médicaments yu muy duggal fi lan mo ñuy léré du médicaments bu ñu trafiquer. Lool mo nak mo jëra laaj. Il a un budget de 2 milliards. Il gère 2 milliards. Non, astafurlah, 200 milliards. Ah ouais 200 milliards 200 milliards ñu teg ko ci kawam. voilà ci loxo. Légui tay li lan mo ci responsabilité société civile lan mo ci responsabilité politiciens et tout ça. Ah, li nak ñoo <laughs> ci xaar ñu ci wara xaar. waaw ñi nga xamné ni soit soi-disant société civile nan ñu wax ci li. waaw soi-disant euh, Diomaye. Hmm. notre président. mu wax ci lii premier ministre Badiane Oulimata Ndiaye tamit mu wax ci lii. en tout cas c'est grave. voilà comment on peut prendre un trafiquant de médicaments lorsqu'il apporte de la criminalisation Le nous ñu war ko nommé DGARP du docteur Alun Abou Talib Diouf C'est un un présumé trafiquant notoire de visa escroquerie faux et usage de faux a une vidéo nous nommons ko Pessaya Grand Théâtre te PCA tey di responsables de xamante ne yow yaay contrôler l' du directeur alors que le directeur bi fa nekk moo la ëpp expérience moo la ëpp potentialité est ce que tey nekkuñu ci benn république pastéfien comme Alioune Tine l'a dit non non mais Tange noonu la mën a demee ñoom wax nañ ko wax nañ ko Ousmane Sonko bërki démb bi mu génnee lan la wax lan la wax soxlawuñu benn benn benn benn transhumant mhm. lan mooy transhumant parce que transhumant mooy Cheikh Tidiane Dièye waaw Mimi Touré transhumant mooy Mimi Touré mhm. transhumant mooy Moustapha Guirassy. waaw transhumant mooy ay Cheikh Bamba Dièye. voilà ñooñu ñooy transhumant te tey jox nañ leen ay postes. léegi du defoon appel à candidature. Mhm. ñu xool gouvernement Macky Sall. ak moom gouvernement post mhm. poste par poste. Mhm. ñu kon moom sax du nekk premier ministre. waa amul amul xam-xam nag. Ah, amuñu xam-xam. ah amuñu xam ngay wax. Ousmane di Diomaye amuñu xam-xam. waaw stagiaire lañu. voilà ay mer ngeen mun a moo def conseil interministériel né ñun ñëpp ñu ngi soko occuper occupé fonction bi ay stagiaire lañu. xamuñu fonction di dem di dem di def ci séminaire. voilà mais démb dafa né il est prêt def débat public wax ci walu finance publique. wax ci walu lépp balaa ngay def débat nga def déclaration de politique générale nit ñi xam lan la débattre ak yow. ta na wata dëgg. balaa ngay def débat. nga def déclaration de politique santé bi. Mhm. lii laa si bëgg def si ay milliards. lii ak ak lii. diw jóge fële ne la santé bi kat lii ak lii ak lii ngeen commencé débattre. waaw mais amul ay milliards. voilà mais moom defu ko. amul carnet d'adresse. voilà ah, defu déclaration de politique a pare buggu nit ñi débattre ñu balaa may dee ñu naan la niveau débat bi dañ ko war a yéegal te chaque jour ngeen génn lan ngeen ñi ñoom seen débat lan la Macky Sall li ñu fi defoon diw li mu fi jëloon. ñii duñ leen jàppee. Mm-hmm. liñ fi defoon ñooñ kat ñooñu soog a ñëw. ñoom loo wax ñu indil la. li nga xam ne ñu ñoom loolu moo tax ñu fal leen. d'accord.

iñaan nit ku soxor man maa war a lekk ba waroo lekk. waaw man man man man gis nga Tange mbir mi bi ma si njëkkee am ay doute rek mooy hôtel ba bi ñu njëkkee falu si ban hôtel la ñu dem. King Fahd Azalaï. Azalaï Azalaï ñoom Damboj Clédor Sène euh, l'escroc nu mu tudd sax le député Guy Marius Sagna euh, Ousmane Sonko amul lu ñu waxul ci Azalaï. Mhm. amul luñ si waxul. kon asalaay ay kayitam baax na. baax na kay moo tax ñu fanaan fa. moo ñu fanaan kayit bu baaxul duñ fa fanaan. kon leneen lu leen mun si wax ci suuf. Mhm. waxuñu dëgg. Ousmane Sonko du demee mu ne simple fonctionnaire la il n'a jamais eu de secrétaire. Mhm. moom tey mu am mun a am kër. Mhm. cité kër góor gi. Diomaye simple fonctionnaire mu def 15 ans impôts domaine. mu am kër Mermoz. mais am na fi ay fonctionnaires. yi leen ëpp niveau. te amuñu ko. te amuñu ko y' a des médecins yi leen gën a doon ay patriotes am na fii ay force de l'ordre ay ay ay commissaires ay policiers privilège ñoom bi ñu bi ñu am ñoom ci système bi ba mun ci ci seen bopp policier bi amu ko médecin bi amu ko ñeneen ak ñeneen amuñu ko enseignants yi amuñu ko te enseignants yi ñoo la ñuy jàngal kon la may wax rek mooy li ñu doon xeex yépp ngir seen intérêt nan ce sont des hypocrites d'accord moo tax ñu doon xeex seen intérêt rek te seen intérêt jot nañ ci faaletuñu askan bi d'accord